asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, man maay monsieur le maire Talla Diagne di commune bu Thiénaba waaw daje bi tey moom dañuy sant yàlla bu baax eh, ndax tey final la boo xam ne finalu coupe maire la fii ci commune bu Thiénaba soo gisee ndaje mi tey mu mel nii eh, nga xool. ñi nga xam ne ñoo fi teew tey nga xam ne li nga ma laaj ni lan moo waral ndaje mi soo ko xoolee rek da koy daal di bëgg a xam euh, ñi ngi sant yàlla bu baax di sant monsieur le préfet euh, di sant it sama nattu nga maire yi nga xam ñoo ne ci département bi euh, monsieur Daouda Tine mi ngi nii monsieur Ndiassé Ka mi ngi nii di maire Kayar mais su yeboo ma ni département bi kenn desul eh, délégation monsieur mbay Faye mi nga xam ni dafa am yéene ci commune Thiénaba mais dafa am yéene ci département kees mi ngi nii ñu ngi nii sama ginnaaw mu am ta eh, kon bisu tey bi neex na présenté mais bisu tey bi neex na wax lan moo ko waral eh, li ko waral nag mooy xale yi ci boppam seen bëgg-bëgg mooy lii mooy fo ak rek moom moo ko waral kon dunu man lu dul jàppale leen ci ñun ñi nga xam ne ñooy maire yi nekk ci gox goxaan yi waaye leen ci taamu woon rek mooy ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina euh, li ci ëpp solo mooy loolu waaw ni ma def ba bis bi mën a am moom yomb na xam mooy bu ma ko organiser woon man rek eh, du sotti mais su ma fi teewoon man rek du sotti kon bis bi ni mu mën a amee mooy sama nattango maire yi ak responsable yi ak sous-préfet ak sama ak adjoint ak directeur yi école yi ñoom ñëpp kenn manqué wul kon su yeboo ma ni bis bi tey réussir na waaye du neex a xayma lan moo tax mu mel nii kon nit ñi seen jikko ak seen cofeel ci man ak seen fonkeel ci man loolu moo tax bis bi man a mel nii. yan jafe-jafe ngeen rencontré ci genre final bi jafe-jafe yi moom ci wàllu final bi xam nga gis nga terrain bi ni mu mel euh, li nu ci war xam nanu ko mais ku ne xam na ni commune Thiénaba Euh, bariwul doole waaye nag ñu ngi ci ay tànk yoo xam ni xalaat nañ ni balaa weer wee del si déwén terrain bi dina am beneen xar parce que nag euh, wax naa ko léegi euh, mbay Faye am na yéene ci département bi mais am na yéene ci arrondissement Thiénaba waaye am na yéene ci commune u Thiénaba moom waxal na ma boppam ne ma ci fan yu néew waxtaan na ci ak ministre bi dina ànd ak moom ñëw lépp lu war ci terrain bi insa rabbi dinañ ko ci def loolu nag muy lu am solo euh, di ko sant bu baax di ko gërëm mais nag di profité woo di sant euh, président Macky Sall euh, ci taxawaayam mais ci gis-gisam mais ci ambition bi nga xam ni moom la yéene ci réew mi kon dañuy profité di ko sant ndax lii lépp moom la moom moo bëgg jàmm mais moo bësal yéene jëmay réew mi kanam waaye moom moo nuy jàppalee ci li nga xam ne moo nekk ci suñu ay commune kon dañu koy gën a sant di ko gërëm mais di ko gën a tàllal loxo lépp loo xam ne war na ci ci wàllu ndaw yi lépp loo xam ne état bi mën na ko mu ñu jàpp ci ndax ku ne xam na ni communes yi bari wuñu doole mais am na nañu yaakaar ci moom waaye li lépp rek jàmm ak salaam moo ko lal kon yal na yàlla doolee dimbali ba jàmm ak salaam boobu nga xam président moom la bëgg ci réew mi yàlla jàppale ko ci ndax nag ñi nga xam ne moom la teg ci sunu wet mooy su préfet yi ak préfet euh, ak seeni i li leen war lépp ñi ngi ci guddi ak bëccëg kon jàmm ak salaam rek moom moo fi mën a am te loolu mooy am merci